di jiital bi ak siyaar bi xalifatullahi fil ardi cheikh mouhamadul muntaqa di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi lool may ko ak wér ba mboolem lim naan ngir liggéey ci Sëriñ Tuubaa Rasuul mu àggale ko naka noonu di ko xalifa cheikh ibrahima fall moom it sama borom dëgëral ko yàggal ko fi muy gën a jekk ndigal yi koy cheikh mouhamadul muntaqa di jox mu koy mën barke xaadim sa du di ñaanal orang njaboot lagi, suñu waa gi yëpp ak mboolem xalifa yi nekk biru biir réew mi yëpp naka noonu dañuy gaaw rek tàbbi ci biir waxtaan wi di ndokkeel bu baax ñi nga xam ne ñoo taxawal bis bu bis bu màgg bii muy di ci fàttaliku ku màgg koo xamante ni yow murit du ko fàtte ndax liggéey na ci liggéey bu rëy liggéey boo xamante ni kenn te mooy maam Thierno Ibrahima Fall di ko ndokkeel bu baax a baax a baax di ñaan sëriñ bi gën koo yokk ay ngërëm xam nag barke Xaadimu Rasuul na ko noonu yëpp ci lool noonu rek ci la ñuy jaaree waxtaan wi jox si suñu Modou Ndiaye ma xam ne moo ko war a def danañ ci wax lu lu wér loo xamante ni danañ ko mën a jàpp ndax maanaam daa bokk ci mag ñi nga xam ne dañ leen war a royee ñu waxtaanee seen taarix ñu xam ko ndax jëmmi lislaam li sama borom di wax rek ñi nga xam ne dañuy waxtaanee seen baax seeni xissa dañ koy waxtaanee ngir ñu waaroo ci ak mën a am lu ñu royee ci ñoom loolu la qad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab kon foofu la jox si muudi rek mu duggee foofu noonu dara nañ bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وعملنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين باقي كتابه ñu ngi leen di nuyu bu leen ziara di leen baal xaq di baal ñëpp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yal na bokk mu jéggal ñun ñëpp suñu nuyoo boobu ñu ngi ci jiital suñu kilifa Sëriñ Ousmane Ndiaye nga xam ni moom lañu teg ci bopp yoonu mu yor leen seen kàddu di leen joxeel ay kàddu rafet yoo xam ni fu mu mën a teew dana doy sëkk wala ñëpp di fa ci di nuyu suñu bàyyi di Serigne Modou Fall di wér ñu bu baax itam Serigne Gora nga xam ni ci moom la jotaay bu tedd bu rafet bu jekk bu jaadu bii jaare ci ay loxoom. ba'da zaalika it ñu ngi nuyu jàngkat yi nga xam ne ñoom it ñoo ñuy faral di wéttali ci ndaje yi nga xam ne moom la ñuy faral di am Serigne Mor sama gars yi tëdd yëpp rek ñu ngi leen di nuyu kàddu ak suñu xol di nuyu itam yi nga xam ni ñoo fi nekkoon ci suba ba tey di jàng xasida ñu ngi leen di nuyu bu baax ñun ñëpp mboolem fi jaar di nuyu itam suñu mbokk jigéen ñi nga xam ni ñoom la ñuy àndanteel jataay ñuy ay ndaw toll ci waroon a xalaat def leneen ci seen wàllu adduna waaye xëytu lu baax ak bëgg ko waxtu nekk rek ñu di ko àndante ak ñoom ñu leen di nuyu bu baax. di nuyu mboolem taalibe yi nga xam ni foo tuddee Serigne Touba rek tudd leen ñoom ñu nekk ay ñoo xam ni ay bayaakoon yi sunu borom subhanahu wa taala leen loolu xëy na danañ ci ñëw léegi suñ góor ñu ngi lay ndokkeel bu baax xanaa di wax rek ki nga xam ne moo yor kàddu mu di Serigne jot na sëkk jot na sëkk lu ngeen gën man ci waxtaan ak bokk taalibe yi ngeen di waxtaan ak ñoom yéen ñi nga xam ni ñu leen suñu borom teg ñu di leen ñaanal ngeen yàgg fi ndax fi bañ leen xamee ba tey ci luy jox yoonu murit ndam rek ci ngeen nekk te bokk na ci liy jox Serigne Touba maanaam jataayam li koy jox valeur dëkk bokk na ci ñuy am mag ñu mel ni yéen su ko defee ñooña danañu gën a bàyyi xel ndaw yi nga xam ni ñooy xeeñtu Sëriñ Tuubaa ndax ndaw buy jóg di yëngu ci lu baax su ko ay mag di gunge rek loola day tax deesu leen gaaw a yam waaye su fekkee dañuy nekk ay ndaw kese yoo xam ne seeni jataay ñoom rek ñoo koy teere dafa am ñoo xam dañuy jàpp ni ndaw ñooñu ñàkk lu ñu def ñàkk fu ñu dem ñàkk kilifa moo leen tax di teewe bis yooya damaa am aw naqar wu rëy barke Seex Muhammadul Amin fii ñu toog ci ci ci barab bii fii fi la ay bis di xew yoo xam ne yoonu murid di ko woote soo ñuy fekk fi cadre bu ne ñu dëkk ci dëkk bi ak ñu fi dëkkut te wallahi la azim fu ngeen gis ñuy woote ñu baax ak fu ñu ko mën a woote jàmm ja ñu am ba di ko woote Sëriñ Tuubaa leen ko defal